Naata Mbaye euh, sama rakk bopp di la jox sa wàccuwaay di nuyu sénégalais yu teewlu yëpp di nuyu nag El Hadj Malick sama mag bi sama chéri koko sama xarit. xam nga ni fii la ëppee. delloo nga primaire de. waaw ñun boobu. xam naa. ku mënoon bi xeetu bind waaw maa ci ayoon. Malick xam naa ku mënoon bind yooyu. bi ku bëgg a bind mu ne la kaay ma bind. voilà Malick. non Malick na maa jàpp may may may may joxe benn lettre ay ay ay ay sama benn xale xale bu jigéen bu ma bëggoon lool. waaye fexe nga ci. waaye la ca làkk. ci ay tubaab ba ñu Sirou a defantoo. ba dafa jaar ci école Alaaji Malick. waaw Sirou Dia moom dafa war a eh, dafa dafa laaj tuuti. Eh, defaraat defaraat. Chérif il faut ñu déconstruire ko defaraat ko temps dafa fuuy léegi bew bu métti la am. day osé ma kay moom bañ ma jël. dox déggal li waru ko de. nee naa dañuy fàttali dañuy fàttali euh, yow ajaratu nga dem nga màkka. waaw loolu lay fàttali loolu ah, dama concentré ci coupe du monde mi nekk ci Sénégal. yow demoo ba victoire lay lijjanti Lions yi moo tax lu dul loolu ma ci du ma ci wax. alors tey jile jàngat bi da ngaa bëgg a taxaw euh, ci Pastef muy coowal cumul mandat yi ak euh, suñu yenn ci ay politique yi nga xam ne dañuy wax dara wala joxe seen kàddu ci dara ba noppi ñëw bëgg ci génnaat ci loolu nga bëgg a taxaw. waaw ci loolu laa taxaw. Uh-huh. waaye eh, am naa rek. Eh, quelques quelques brèves uh-huh. en passant eh, bu njëkk bi mooy li ñu li ñu communiqué démb procureur bi. Uh-huh. mooy waa ñaari gendarme yi disparaître ndax xam nga loolu tamit lu lu doy waa Sénégal daal léegi xaw ma xaw ma film Kobay moo fi am xaw ma daal benn ban genre loo fu musul dégg nga fi dégg waaw ndax Euh, lu mel noonu defa naa disparition xeetu façon disparition boobu ak niñ ko imagé noonu ah, dem nañu géolocaliser nañ ko dem nañu ba fee seen falaise kii fee seen ay daal lañ fa bàyyi yeeg nangam marine marine banque yi xool ak xawma lañ lan prévotal ak nangam nangam xam nga yooyu ak euh, euh, Euh, niñ ko niñ ko waxee noonu j'espère que moo taal sama téléphone bi kii wala euh, il faut ngeen a ma nag ma ma am benn affaire moo teg fii sax au moins euh, maa ngi sa sa sa café boobu xajul fii sa drapelé boobu. Mamadou Ndiaye bi nga xam ne dafa xarañ ci gis naa ko mu yor ci benn dinañ ko wax. waaw waaw waaw moom la nañ waa kay. day jaay boo nawee ci circulation xale yaa ngi jaay kii yooyu nga def ko nga jënd. faale ma la léegi léegi. yow waxal léegi léegi nag xam nga façon yooyu lu day waar la. loolu déjà ba mu amee ak ni ni procureur bi génn xam procureur bi tamit euh, looy dena fi xew doo ko dégg mu mu wax waaw fu mu ngi foo ko déggee moom fu mu war a waxee du fa waxee fu mu war a waxee lay waxee moo tax bu te bu waxee da ngay xam ne yaa yaa quelque chose moo tax ba ma xëyee tey suba ma gis euh, le quotidien le quotidien aussi qui n'est pas n'importe quel euh, quotidien hmm. wax ne ak précaution yu mu jël seree ooree nangam ak nangam loolu yëpp dugalaa pour daa résumer ne Euh, lii ak euh, affaire euh, Pape Alé bi am na benn connexion lu lu waar la loo xam ne comme ñoom nee nañu ñi ngi ñi ngi wër Euh, j'espère que dinañu leeral sénégalais yi dans les plus de délais xew mais man li ma ci bëgg a rafetlu mooy li ñu doon wax fii ni yëpp Malick di ko ñaawlu mooy quand ñuy ku dem ba sol tenue Euh, ak tamit ku nekk fonctionnaire wala wa wa wa ilaa bépp sénégalais boo xam ne da ngaa nekk ci bërëb yoo xam ne da ngay jot ay xibaar yoo xam ne xibaar yu confidentiel la. Mm-hmm. yu yoo xam ne mën na euh, euh, tukkal réew du du du xibaar yoo xam ne nii. Euh, war na génn ndax foog ñu xam tamit ne euh, Sénégal nation bi ci de manière général mooy kenn ku ne rek mën na ko jàpp ne benn kër miniature ku ne naata sa kër am na lu fa xew loo xam ne bëggoo génn. obligation de réserve voilà obligation de réserve kenn ku ko kenn ku ne. foog nga dafa ko dafa ko sa bopp ndax ku ne boo xoolee ne sa kër am na lu fay xew loo xam ne. doo ko wax sa yaay doo ko wax sa papa te amoo intérêt bu génn kenn ku ne rek am nga sa ruq mën kenn am na su looy nëbbal sa bopp kon ñun ñëpp nañu suturaalante terewul nag liberté d'expression am fi terewul nag euh, nit journaliste nga war a def sa liggéey waaye ku nekk ci benn ci ay ay bërëb te xam nga ñaar ñi ni ñu waxee boo gisee coïncidence ñu waxandoo yëpp ñoom ñaar dañu àndandoowee euh, euh, cosaanoo cosaan fi ñu cosaan ñoo bokk benn village nangam ak nangam loolu yëpp xel mën naa teey si ne xëy ñu suba demaale mais li ci am solo rek mooy euh, comme léegi leer na ne ñi enquête quand même ba xam xibaar yi génn te warta génn fan la soqee kooku c'est important c'est à saluer Euh, mu leer aussi ne ña fa nekk tamit euh, naroon a am même tentative même même même yëf ya ñu ñu ñu kale leen ñu xam ne ku fi toogati toog ci ay bërëb kenn ku ne am nga droit farax ko la neex waaye Sénégal moo jiitu lépp te moo war a primer surtout ku toog ci benn bërëb boo xam ne ay information yu doy waar ñu fa nekk. yu sensible nga bëgg a génne uniquement parce que da ngaa bëgg a far da ngaa far diw di xeex diw. loolu ñu qu'on y mette un terme loolu moo tax euh, damay ñaan lii xibaar yi génn te waruñu génn kon y mette un terme te kenn nag moo ci mën a mettre un terme mooy nguur gi la. far googu ah. far far googu sax warul ab soldat la. Hmm? ma ne far gi ngay wax sax fara ku la neex. bi war warul warul warul xam nga Chérif mooy la woon xam nga loolu comme warul. te comme euh, dañ nekk si parce que tout ça nag il faut le dire c'est parce que on a laissé trop faire. on a laissé trop faire ba yëf yi dem ba agsi fii nga xam ne waru fa àgg dafa naa ñi ñu toogoon seetaan nekk au balcon di seetaan ba lii xew ñoo nekk di yëngutu te nag nañu fexe nag ba lu fi li ci mën a xew avec la même transparence nañ ko wax sénégalais ñu yëg ko pour que nul n'en ignore loolu c'est quelque chose que je tenais à à à à dire c'est euh, important beneen bi la république mais la république est danger parce que euh, ku foog ne euh, xeex mooy loo xam loo xam ne nii du bu génnee yow mi ko génnee lañ njëkk a yàq dangay jàppale diw jàppale woo ka nga ka nga foog ne moom ngay jàppale jàppale woo ko yaa ngi koy yàqal parce que ku yàq Sénégal sa bopp nga yàq loolu faut que ça soit très clair te nag pour que mu clair mooy Sénégal léegi comme dañoo nekk ci ci réew ku la yen mbir nga yen ko immeuble réew rëkkante la fii nappaatee fi nekk ak màttante gajante ku la gaje nga gaje ko état bi naka jaate loolooy dëgg ndax ñun il faut que état bi moo ñu war a protéger mais c'est c'est c'est grave ñu demee nga xam ne ay ñu sol tenue ay homme de tenue ñooñu ñu leen doon wooye la grande muette ñooy génn léegi di fësal lu garaaw loolu il faut que force reste à la loi pour notre bien à tous c'est lool loolu laay rafetlu ci li xew beneen bi mooy euh, euh, bi tamit benn euh, xam naa brève la boo xam ne nii jàngat en téléchargement la lay continuer nekk muy Karim Wade waxoon naa temps yi ñu ngi koy waxaale gis nga keroog nee naa Sénégal perte na nu am na defet rafet boobu sax dama ci bañ wax lu ëpp ndax xam nga sama dama caa xamul tax dara wax dëgg yàlla waaye wax dëgg <laughs> waaw gañe nañ ñu waaw doon nañu deux zéro mais mais mais gis nga nag Malick hmm. foofu euh, euh, lu ndaw nag laa si wax xam naa ne sénégalais yi euh, nañ ma déggee xel encore une fois mais dama ci xaw a kontaan tuuti xam nga lu tax ah. xaaral ma wax la nañ ma déggee. non li wax kay. waaw dégg nga xool xool xoolal waale bi waale est-ce que nga dëgg dëgg lu ma xaw ci ci mu xoolaatal da nga formulal phrase bi xoolal leneen la wax lu dama cee kontaan tax ma xaw ci kontaan tuuti. mooy ñun sénégalais dañoo am benn maal bu ñu dal ñu dañoo gaaw a naagu dañoo gaaw a wóolu suñu bopp gis nga euh, match boobu man dama jàpp ni nii la waroon a demee moo gën su ñun parce que buñ ko ñëwoon salaamaaleykum xam nga offre bu ñu àndandoog yëpp kaan bi ak nangam ñi def ñi ñi dafa ne presque ñun gañe nañu coupe du monde bi dégg nga dem nañ jëli coupe coupe bi président Sall naan damay jëli coupe bi ñëw indi comme si c'est un truc évident la xam nga yooyu buñ bu tey ji buñ gañe woon Hollande Hollande dañuy bàyyi suñu loxo nee naa la ñu xoolal bàyyi nu ko lañu def nii dégg nga ràcc tàllal tànk yi di dis di sorote ay ay ay cocktail dafa ne gagné nañu coupe du monde. kon ñun tiit c'est important gis nga ñun ñun ñooy réew moo xam ne. <laughs> dañoo tiit non nee naa la jaaxle bii am. man dama dama Sénégal bu ma si kenn jëpp nag. Ah, waaye li ma wax nañ non non c'est important parce que ñun on était sur un nuage hein. nuage yi nekkoon waaw mais mais moo tax c'est important waaye champion d'Afrique du champion du monde nañu wante dëgg nag. benn deuxièmement lii aussi dafay tax ba euh, euh, kii man xam nga Aliou Cissé man dama ko bëgg sama biir xol. man Aliou Cissé dama ko bëgg sama biiru xol lii dafa important ndax moom itam ñu doon commencé di naaw di voler ñeneen ñi di fly to fly yow way umu sooba ñi ku nekk di fly di tëb di tëb di tëb tëb tëbee ba pare euh, euh, euh, xaw ma influenceur xaw ma lan mumbaay bi yëpp ndiir ga yëpp fi ñu toll ni Sénégal am amatul ay woyoog bànn ñëpp daw nañu ña nga ña nga xaw ma fi ñu jaar nag ba daw dawaa léegi yooyu yëpp ëffari boobu mumbaay googu lii bu xewee day tax ba Aliou Cissé dina toogaat xam na ndax si Aliou Cissé xam na sénégalais yi jot na fi de ba léegi mi ngi jot xam na ne bu continuer nii vendredi bi Euh, moom am na lu muy demee noo xam ne moom Aliou Cissé mu ak Sénégal moom ndax xam na waa Sénégal nu mel ak seen ñun ay waxkat la ñu. kon ku ñu daggal tubay ngeen la lay xaar Sénégal ñoo baax ci yar nit moo tax ma ni lii xew moom Aliou dina defaraat boppam dina lijjantiwaat boppam parce que il il risque gros Sénégal yi la jàkkaar loolu benn. deuxièmement dina tax tam ba mu affaire xaw ma les cadres xaw ma affaire cadre man xam nga fi am ay cadre ak yooyu dina tax ba dina xoolaat xale yeen toog ca banc ba. te te te xiif mu mu dugal leen comme ñun Sadio duggut Sadio euh, euh, la yàlla def def na ko nañ jël xale yi na seen chance mais nañu yeewu nañu bàyyi effort yi nañu xam ne lii du ay caaxaan lii du ay petit camp du ay match amical waaw du ay ay popo yëpp nga xam ne ñoom seen bi loolu la ñu ay popo ay petit gloria deux cent trois cent yooyu lii coupe du monde la ñi nga dajal ay kàngam la bàyyi ëffëru beeg yeewu beeg naaw beeg ñooyu na ngeen ne toog euh, revenu en esprit cartésien donc euh, ca doowaa boobu nag Sénégal moo tuxu ndax ñun dañ doon toog di xaar Karim waat gën ñu ko gis kanamam ay ay ay wax sabam la ñuy dégg ak ay communiqué ak ñoomin seen waaye fii la ñu wax ne euh, c'est pas am na daal yu bëri yoo xam ne mi ngi xew ci suuf te xam xam ma man damaa rus wax ñu ñu may weddee waaye xam nga ni euh, Macky Sall mel ni cundum nem toog fee naan day joxe ay remise de drapeau Karim Wade comme par hasard dowaa mooy borom dowaa nag Sénégal ñoo fekk si xool lii benn ful bi affaire bu rëy bi amaale ah, Karim Sane xool Sénégal yi ñu ko fa doon wax yëpp biisu mi ngi koy biisu xoolal ma rek yow yow lii xoolal kenn xanam daanu na ndax. kii Djibril Wade la ah voilà waaw Djibril Wade. vice président euh, fédération lu mu fi defoon barki moo Ndiaye. loo tam nañ koy fàtte. Chérif euh, yow mu mën a rappelé bi xam nga bii doog nee na patt xoolal may na patt bi donc tout ça pour te dire que. yaay jàngat de bu <laughs> la neexee nga jàngat waaye xam nga il se mouille donc ce que je veux dire mooy. ñëpp ngi koy photo ñii di ñi ngi photo ñi ngi kii xool TikTok bi Sénégal vedette xool TikTok ba man xam nga man TikTok man mooy sama télé en miniature ah, xool TikTok ba xale ya ña nga naan waaw ndeysaan Karim Wade ndeysaan kii doomu Wade bi karang-karang di ko biisoo fóon ak di ma donc jël xew bi nag xam nga kañ la xam nag réellement ce qui se passe xam nga de gis démb gis naa ay wedd ak ay tuuma ñu naan am na lu fa xew ak am na protocole nangam nangam mais fan yi la ñuy xool parce que je rappelle aussi que depuis ñu wax a yëkkati affaire Amnesty yooyu euh, bizarrement dégg ngeen benn mutisme côté taxaw Sénégal dégg ngeen tamit beneen mutisme côté PDS. je je dis ça je dis rien déggu leen ba ba tey PDS presque euh, xaw na disparaître ci. Euh, débat public bi on en parle plus ñëpp nee nañ pat noppi léegi nag comme Karim nag euh, gis naa kenn ku ne aatuma mu réeroon feeñ na doo comme nag aatu feeñ na nañu xool maintenant moo tax ma ne c'est en téléchargement nañu xool maintenant à suivre ce qui va se passer dans les dans les voilà d'ici mercredi prochain ñu xool ce qui va est-ce que di dégg bis comment dara mais Karim xam nga nii nii nga xam ne mu ngi doon def petit benn foule nemme ko Sénégalais yi fi ñu nii dafa mel ne dans quelques jours da gis ñun cëpp Sénégal lii xewaat donc loolu yëpp nag euh, euh, comme ni ma waxee c'est ma ñëw ci euh, jàngat bi. Sénégal en miniature ah cest nga ñooñu ko accueillir noonu ak euphorie boobu ah. bu lépp. mais dama ne fàttal nañ ko complètement fàttal nañ ko may man lii xam nga tax mu neex mooy dafa dafa dafa concourir rek Malick li ma yàgg wax ne fi ñu toll nii jàkk jàng noonu ku mun noot nga noot loolu tam dafa am solo ci réew. Mm. Mm. ndax euh, fi mu ne euh, Karim. ñëw na testé na xool na Sénégalais yi ba tey ñu ko bëgg affaire yooyu teint bi gën a baaxaat gën a bien gën a nangam euh, dina ne tarxis na dugg am na lex-lex yi génn na teint bi kii na il a fait un super gommage moom moom maasewul danoon gommage moom donc loolu yëpp c'est important mais la am solo mooy sénégalais yi ñoo mel noonu ñun ñun sénégalais ñun ñooy un peuple émotif te ba pare on est quelque part on aime être euh, euh, euh, am na ñu ñu bëgg amnésie ñu ne bëgg loolu dañ ko bëgg léegi bëgg loolu moo tax ba ma ñëw si sama jàngat bi parce que c'est l'un dans l'autre xam nga chaque jour man damay wax fii ne su ma toogee man jeune ne parle qu'aux Sénégalais Sénégalais laay waxal te yàgg naa leen ko wax ne moment bi ñu nekk dañu nekk si benn moment charnière boo xam ne c'est nous-mêmes qui devons prendre notre destin en main jël suñu destin en main mooy bañ a dégg dénk suñu lépp benn nit na ko doxal jox ko suñu jël suñu bakkan yii jox ko kenn na ko yaa yaa ñuy moom fii ak fa ñu jëm loolu moo fi moo fi war a jeex te mi ngi commencé di jeex parce que li tax mu commencé di jeex mooy xam nga li xew Pastef cumul de de mandat boobu euh, yàgg na fi am waaye dafa fekk ne Pastef ci boppam nga xam ne moo ñu prôné moo ñu dikk rupture Euh, lu ëpp ci sénégalais yi fi mu ne surtout xale yi ñu fonk ko fan ko ndaxte dafay indi ñoom rupture bi ñu prôné euh, ba ci gën a fort en tout cas boo xam ne c'est en cours c'est en marche mooy rupture entre les les partis classiques naata euh, te defe naa loo tax ñu am cette adhésion là de xale de, de, de la frange jeune de la population ce qui est euh, pas n'importe quoi ce qui n'est pas n'importe quoi donc loolu nag moo tax bu ñu amee yenn contradiction yi mais les gens dañ leen di mettre face à ces contradictions là te lool c'est important ndax pour man loolu rek euh, c'est un sursaut républicain mooy tey jii sénégalais bu nekk yaa ngi xool bu baax li xew sa réew ñi koy doxal te loolu lu baax la ndax dafa war a am ndax suñu réew mi ñoo ko moom te ñu ñooy fal ñooy folli te nag foog ñu xam ku ñuy fal ak kam na ñuy folli donc xam ki ñuy fal ku ñuy folli boobu mooy foog tamit ñun ñuy décortiquer le discours politique foog ñuy xool kenn ku ne sa affaire wax waxet affaire cette affaire de VAR là lu baax la pour la respira pour la respiration démocratique de sa pays c'est important parce que ku ne kenn ku ne su ñun am nga mbokk kenn ku ne su ñun am nga nit ñu lay VAR aller retour ci TikTok yi di la internet réseaux sociaux yi kooku gàcce la ndax say sa doom dina jàngi woo ubbi TikTok gis sa papa moo fi waxoon lii démb moo fi waxaat lii tey loolu rek kenn ku ne dina ñu ngi commencé moralisation mhm. de de la vie publique bi ñu dafa am solo donc pour en revenir à Pastef xam nga dama wax ne euh, dafa am loo xam ne reniement kooku fii au Sénégal ñi ko gën a xamee ñu ko ñu ko def seen yëfi bopp ŋànk ko ba te ko bàyyi mooy homme politique yi mm-hmm. te dañoo soxla ñun ay homme politique yoo xam ne dañ nekk ay homme d'état mm-hmm. homme d'état mooy euh, euh, am na ko kilifa gu doon wax ne sa waxu démb bu méngoo ak sa waxu tey ak sa jëfu tey voilà loolu dafa am solo te moo commencé di am mm-hmm. mooy lan mooy ñoom Pastef bañ ñëw nga tuddee seen yëfi projet ñoom ñoo ñëw dikk sénégalais yi ne li fi nekkoon dañuy déconstruire te déconstruire ko mooy d'abord si jikko yi ñu indi fa rupture nette et totale li fi xewoon bañatu fi xew mooy lépp loo xam ne pas politiciens yi fi nekk doon nañu ko naxee ñu bàyyi ko te loolu dafa commencé par li nga wax nga gëm ko lu mel ne ay cumul mais fii ku ne kenn ku ne xam ne ne moralement mais cumul dafa gënul parce que euh, euh, gënul benn nit dong toog si fanweeri pasof juróom-benn toog ci fukki salaire ak juróom-ñaar gënul aussi ci réew mi ñu toll nga xam ne fii ku ne xam ne ku euh, faiblesse euh, faiblesse su euh, prix <laughs> d'achat bi ñu am xam nañ ko fii xale yi di jàng soxla chômage bi ni ñu toll xam nañ ko xale yi di jàng soxla ñoom itam am ascension yéeg dafa so dañ ko soxla parti yi parti classique yi lan mooy seen seen problème majeur mooy benn nit moo toog moo mooy li ñu doon dégg euh, man maay constante bi les autres sont euh, da la nu ñu ko waxatee. des variables. ñu loolu yàgg dégg parti politique di ko di parti politique Sénégal di fonctionner comme ay entreprise boo xam ne benn nit mooy chef d'entreprise mooy financé mooy def lépp mooy buum mooy buum yi léegi nag ñoom ñu ñëw daane ne c'est un projet mooy ay nit ñoo dajaloo taxaw dara nga xam projet bi ñu nee projet derrière il une construction. boo xam ne idéologique qui est fondamental léegi nag ñooñu bu amee ñoom ñëpp nag ñu am ñu am lenn en commun mooy ce sont des jeunes ay jeunes cadre la ñoom ñëpp ay fonctionnaires lañu kii dafa naa mais bërëm mi euh, mi ngi mi ngi impôt te ñoom nekkuñu rek ay cadres yu ndaw ndawaan dañoo nekk tamit ci ay corps d'élite yoo xam ne foofu jàng bu rëy moo la fay yóbbu diplôme bu fort nga fay génnee moo tax ñoom te ñoom ñëpp kenn ku ne si ñoom nga am poste boo xam ne euh, c'est pas euh, accessible au commun des mortels kon ñoom nguur gi wàccoon na ak ñoom seen waajur tam wàccoon nañu ak ñoom ci wàllu éducation ak tak tagal donc bu ñooñ bu ñu ñëwee daan na dañuy indi rupture dañuy xaar si ñoom rupture bu am solo ak te ñun li ñu wax mu ñu dëggal ko mooy cumul boobu dafa am solo ndaxte fii ku fi mës a ñëw yàgg nañ dégg député maire député ceci député cela ñoom ñu prôné dara ne loolu duñ ko nangu waaye xam nga tax man Birame Souleye nii uh-huh. dama ne li mu wax dafa am fu mu ko teg benn te ñi ñi taxaw di ko xas ñëpp euh, li ma wax ne Sénégal réew la boo xam ne les gens aiment porter des œillères ñemewuñu dëgg moo tax bëriwul si ñun ñuy wax dëgg xam nga dëgg bi mooy kii luñ ko wax dañ kaa tooñ Birame Souleye mi luñ ko wax dañ ko tooñ parce que ki premièrement ki war a wax moo waxut te ba mu waxee la mu wax moo njëkk garaaw Ousmane Sonko mii njiitu parti fii la génn daan euh, renvoyer la patate chaude au cumulard loolu la wax ñëpp di ko dégg choqué wul kenn xam nga Sénégal comme ni ma la wax rek bu ñu la xasee ba teg fenn comme ñoom ñëpp fi ñu toll nii euh, mu sell nii dëgg-dëgg essai selli tudd euh, moonu moonu emporte ñun ñëpp euh, c'est-à-dire on on ne dit plus la vérité on la regarde en face mu leer mais on préfère ne pas la voir ne pas ne pas la dire ne la reconnaître parce que moom Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy njiitu parti bi moom la xale yi bëgg teg ko seen kanam moom bu génn taxaw daal ni cumulard dama koy bàyyi ñoom ñu ñoom ñu dese seen seen xam nga loolu c'est c'est lâche c'est irresponsable et c'est ñu tànn ñu la ñu ñu tànn mais mais loolu war ko wax parce que moom bu dee lii parce que c'est un projet mooy jiite projet mooy mooy mooy jiite projet ba gars yi topp ñu Birame Souleye topp topp ñu euh, Bassirou Diomaye Faye. mais est-ce na wañ seen loxo. mais mais quand wax la euh, kii euh, naata. Hmm. qui peut le plus peut le moins. fii ñaata parti nga gis ñuy sanctionné. loolooy dëgg surtout nag koo xamante ne nii mi ngi def loo xam ne dafa fragiliser parti bi xaaral ma ñëw mais lu tax moom Ousmane Sonko moo mën leen mu renvoyé leen foofu laa ba te pourquoi ma ne Birame Souleye lu ñu ko wax dañ kaa tooñ parce que le premier cumulard en chef mais Ousmane Sonko la fii la fi nekkoon député maire choqué wul kenn levée de bouclier bii am ci Birame Souleye amoon ci Ousmane Sonko dëgg loolu dëgg on est tous là personne n'avait relevé bay d'annoncer la le le cumul de de de mandat de Ousmane Sonko jusqu'à un passé très récent kon pourquoi ki jiite parti ba ba mu fi cumulé ñëpp tout le monde a fermé les yeux personne n'a parlé mais Birame Souleye xanaa mooy nooy neex bi ba mu ñëwee ba ba moom moom itam ba jaar ci tànki Ousmane Sonko ñu bëgg ko ngelabu mais moo tax mu mu fudd na leen maa bay d'accord naa ak moom moo tey il a raison. y' a Cheikh Aline Bey aussi de Diamaguène. de de moom moom il a été plus catégorique moom moom man. mais damay damay cumulé. damay cumulé mais mais dama d'accord ak parce que xamoo tax. xamoo tax naata mooy gis nga li may tout le temps ñun foog ñuy changer suñuy jikko gis nga exemple ka jiitee ko war a joxe mais ku jiite bu joxewul exemple ña topp ci ginnaaw bu la neexee def la leen neex. te dafa rate aussi occasion moom Ousmane Sonko wane leader parce que li li xew am nga parti Pastef rek euh, dafa laaj jàngat bu yaatu boo xam ne man j'ai pas le temps def ko parce que déjà su ma ko defee da nga ne dégg ñu ni wii leen lii nangam su que man tout le monde sait man euh, man Pastef bañu ma leen man Ousmane Sonko ci boppam laa sawaru ay yëfam loolu moo tax du ma Pastef nag mun nañ si def jàngat foofu do sax ay investigation dara mun nañ si def lu rëy rëy mais li may li may li may wax sénégalais dañ ñoom li may wax ñëpp xam nañ ko mooy Ousmane Sonko ci boppam ci biir Pastef dafa néew doole li tax mu néew fa doole ñaar la yu fondamental mooy premièrement gis nga affaire Adji Sarr bii dafa daf ko réduire. mooy chef parti bi nga doon waaw waaw moom waaw may ma ñëw la ma may ma ñëw. xam nga waaw waaw waaw c'est que nag c'est que nag euh, euh, Chérif Dia xam nga yow fi nga war a yeewoo nga doolu yeewu léegi da naan teg pat may ma ma àggali. <laughs> donc li ma doon wax mooy xam nga euh, Pastef tout le monde est d'accord que amul fonctionnement normal bi ñu parti classique bi ñu xam ay groupe nit ñoo dajaloo nekkul kenn moo toog xëy suba. amaa connaissance bu bu amulee nañ ma weddi du nekk kenn moo benn benn Macky Sall moo toog créé alliance pour la république ne jël diw ak mu naan fii ay groupe nit ñoo toog. ay nawle <laughs> ay ay nawle ñoo toog groupe nit ñoo toog. dajaloo créé seen affaire ne diw jiite ñu ne diw mi ñu jiite diw mi ñu jiite nag moo ñu gën a moo moo ñu moo ñu dàq wax moo ñëpp lii moo ñëpp ëpp laa ñu jiital ko waaye diw moom moomul parti bi Ousmane Sonko moomul Pastef donc ça c'est une précision importante c'est d'abord c'est d'abord la xaaral c'est d'abord différence et man pour man muy aussi lu bien loo xam ne dafa war a law ci yeneen parti yi parce que modèle bu am solo la ndax ñun dañoo soxla dañuy sonn tamit ci nit ku nga moom sa parti dafa ne yow yaa moom ña fa ne kon modèle boobu Pastef indi lu baax la lu bien la léegi nag beneen bi mooy moom euh, mu sell mii li tax ma ne dafa néew dafa néew doole ci biir ci biir mooy affaire Adji Sarr bi nga xam ne personne ne voyait venir mu këpp yalwaanu ñu bari parce que tâche la boo xam da ngay topp illaa yow mi diini l'histoire retiendra moo taal otoom dem woo taxi la dugg daw mais moo dem d'abord fekk ji Adji Sarr demul benn demul ñaar demul ñetti yoon loolu loo xam ne kenn mënu ko défendre la moo tax doo dégg kenn ku ko défendre ñi wax ñëpp doo leen dégg mukk ñu ni lu tax Ousmane Sonko jógee këram dem seeti ji Adji Sarr Adji Sarr ñëwul këram. fekkul Adji Sarr moo jóg dem seeti donc xaaral may ma léegi nag xaaral ma ñëw may ma waaw may ma may ma ñëw léegi donc faible loolu moo ko affaiblir parce que ci biir Pastef bëri nañu ko mere ci loolu benn donc moom ci boppam xam na loolu moo tax am na ay yenn décision xam mënu ko il ne peut pas la faire aussi Pastef wax naa sànq ne c'est pas un parti classique boo xam nit mooy jóg def la ko wax loola neex def loola neex. mënul ne mais dégg nañu asatu ci kilifa yi nekk ci biir Pastef ku taxaw ne Birame lu ñu ko wax en je je dis non xoolal je dis xam nga waajooju seen député boobu xam nga tam sant Fall mais dégg na fu mu na waaw ne waxoon na fi ne kii Birame Souleye dina bàyyi dina nanga mais naa dina mais li ma bëgg a a wax li tax euh, fii ñun li ñu xam ci parti politique yow ngi jiite parti politique mooy yu mel nii bu amee rébellion am parce que Birame Souleye defiyewul kenn Ousmane Sonko la defiyee en personne ndax dafa génn daal ne kenn kenn te loolu soo dégg mais ban ban ban euh, waxuma sax APR dafa yi mais yow PDS bii kan moo saña a toog jàkkaarloog micro Sénégal yi la déglu nga ni naa nga jël nga dem à l'encontre des directives de ton parti. mais directive est-ce qu'on peut parler de directive parce que bon d'après ñoom sa qu'ils ont dit. programme campagne la woon maanaam ah, Ousmane xam nga xam nga dans le cadre de jot na programme campagne bu nekkee président mais binduñ ko fenn ci texte wala ci statut Chérif li grave kon mënoo fi sanctionné parce que booy sanctionné ci parti dafa fay fekk statut parti bi tere xam nga Chérif li grave xam nga Chérif campagne la ñu inscrire ko ni bis bu ñu jotee réew mi kenn du fi cumul. léegi xam nga beneen ci des aussi nekkul ci règlement xam nga xam nga xam nga def kii la rek ñoom xëy na foofu porox ndoll boobu. voilà xam nga non ñoom ñoom ñoom ñoom seen porox ndoll xam nga comme ni ma la waxee xam nga dama wax ne mooy li ma wax rek ne faut faut pas ñu takk ay. xam nga voilà non je veux dire euh, fii sénégalais yi yëpp même ku ci gën a ndaw ki doog a juddu xam na ne ba mu juddoo yaa ngi dégg ñëpp ñu ñu ñaawul cumul des mandats mm-hmm. kooku yëpp kooku dafa leer xam nga kon ñoom ñoo am benn échappatoire bu mën a justifier li ñu def mooy programme kan nangam nangam ku ne xam na ne ñoom ñu ñoom te te dama ne du rek Pastef mais yeewu askan wi opposition nga xam ne ñoom ñëpp dañoo bëgg pro prôné lu bees ñoom ñoo war a àndandoo bañ a ndoo léegi li tax mu nekk débat ba léegi ñoo ànd parce que ku ci nekk parti la yow askan wi suñu coalition mais ku nekk parti bu nekk am say réalité dama bëgg a wax ne li tax ma le reniement et politique mooy bu fekkonte ne tey jii naata ñoom li ñu wax def nañ ko gëm ko ñu eh, amul ay ay amul lépp ay ay ay balbutiement la ay gymnastique la dugg ci loi beeg kiiwu ne kii de campagne nangam nangam loolu bu fekkonte ne kon de woon di ko wax xam nga Birame Souleye bu doon avant mu jot ci lii waxoon na ko xam nga ko du jot ci lii danga nga xaar ba to ba parce que loolu tamit mooy yëfu am politique mooy dangay dangay ndax sénégalais yi ba jot. boo jotee li nga yor nag doo taxaw naan noonoo non nag génnal leen benn texte bu ñu bind lii wala nangam làqatu ci parce que parce que les textes on les aussi au Sénégal que quand ça vous mais bu la arrangé wul nga ne texte yi baaxul mais li am solo mooy le règlement mooy li maa Malick wax mooy c'est d'abord moral et c'est aussi léegi nag li am solo mooy xoolal démb euh, monsieur le mi dafa am na fi conférence de presse dafa ay contre-feu ñëw ñëpp ñu ngi doon xaar mu génn parce que dañu li bërëm su lay def nii nga xam ne boobu ba léegi waa Pastef sax ñoo ci ëpp lu ñu ci wax ku nekk ngay wax sax li ngay wax mais déggoo kenn koo xam ne ŋànk nga Pastef carrément ngeen wax loo xam ne nii lu dañ ay na la et un malaise profond mais loolu man do rek waa Pastef dama bëgg sénégalais laa bëgg ñu bàyyi xel ci dara mooy nañ jàpp ne messi bi ñuy xaar amagul xëy na fii ak 2024 messi bi leer waaye fii amaguñu Messi ñoom ñëpp a yem tous pare bu euh, euh, euh, jaune ak bleu ñoo yam ñoom ñëpp ay homme politique la li ñuy bañ ci Macky Sall lu ko raw a nekk ci ci ci mu sell ni léegi nag li des nag mooy ñun sénégalais yi ñoo war a ba tey ñu xool xippi xool ñiy wax ak ñun bëgg a ñun voté leen bëgg a toog ci fa fa tey bi mooy nañu fexe ba obligé leen. Sénégal bu nu bëgg ñoom ñu def ko respecté ko nañu respecté aussi respecté ñu mooy. doo ñu nax bañ jox la euh, suñu carte nga dem toog fee ne faax daa ne lii nekku ci taxi yi. looy bind ko wala nangam nangam ba pare aussi. Mm, pourquoi du am benn député boo xam nga am courage. dugal ko que cumul des mandats mais kooku mooy démocratique. mais na ko ne dina proposer. non xam nga Ousmane il n'est pas. il n'est pas à l'aise pour parler de ça moom i c'est pas le mieux indiqué pour en parler parce que moom ci boppam moom moom ci boppam c'est le premier cumulant li yëpp moo ko fi indi bu fekkoon ne joxe woon exemple ba mu nekkee député nekk maire mu bàyyi député ba wala mu bàyyi maire ba kon Birame Souleye bi du ko osé def mais moom mu mu ñoo taxaw nekk maire nekk député ba pare tere ko Birame Souleye parce que ñoom Birame Souleye ak BME lu ñu waxul mm. te je suis sûre que man. ils vont être non non il faut. c' est le non-dit c' est le non-dit. léegi nag fi may jeexalee naata nga nga mayoo mooy. Euh, encore une fois sénégalais yi ñoom laay wax mooy xippi leen te faites le le bon choix c' le moment ou jamais 15 mois xaw ma 14 mois xaw ma 16 mois moo ñu si 2024 euh, ne nii. xippi seen bët bu baax di xool seen réew mi ko koy dénk dénk ngeen ñenn ñi maire bi dénk ñenn ñi euh, yóbbu leen ñenn ñi assemblée nationale gis ngeen la fa xew maintenant yàlla suñu borom bi moo nu bëgg ku nekk nag si ñun yàlla mi ngi lay won avant l'heure kii yee ndax am na yu bëri yoo xam ne mënoon naa nëbbutu ñu bàyyi ca pandaw ba waaye nëbbatuwul dafa ne dàng feeñ hmm. il faut qu'on ait le courage de regarder la vérité en face hmm. et de dire des vérités mooy hmm. au Sénégal actuellement homme politique yëpp ñoo yem benn lañu léegi nag li su nekk mooy de deux mots choisir le moindre il faut faire le bon choix merci beaucoup Aïssatou jërëjëf ci jàngat bi Aïssatou merci dañuy jàll ci euh, pàcc bu mujj ci Infos